suñu ngi lay nuyu. ñu lay fay. ak la. Saar Ba. yaay doom ki nga xamante ni moo di Fallou. waaw ba ñu la jaalee ki nga xamante ni moo di sa doom ci tiis bi nga xamante ni moo dal ci sa kaw mën nga ñëw ñëwalaat ci mbir yi naka la demee ak naka nga ko yëgee. ah man de mbir bi damaa jëlee ko ndax fii la toog ci wetu maamu ndogu ba pare mu maa ngi dem man la ko foo ma maa ngi ñëw ma toog fii. ba yàgg ma taal gaz bi tegaat sama cin man xaaral ma dekkale sama ren fekk tey naa ba pare man laa damaa xepp di teggi teggi indi bi teg ko ne sotti ceeb bi xale bi ñëw ne ma ne yaay Fall ma ne ko maa ngi mu ne ma dañ kaa jam ma ne ko luy loolu mu ne ma dañ kaa jam ne ko fuñ ko jam mu ne fii lañ ko jam waaye jam bi bu ndaw la soriwul ma bàyyi sama cin ma ànd sama ñaari njëkk yu ndaw ak sama benn wuju pecc ko ñu dem montagne léegi bi eggee montagne fu ñu jublu ñu ne ñu continuer ci kanam la ñu dem ba ci jàdd koñ ba am benn grand ñu kan mooy yaay man ko man maa yaay mu tourné man ko sëñ bi lan la nangul wax léegi beneen grand ñu kaay la ñuy kaay ma yóbbu leen ñu dem ba ci yoon bi ñu yëg pont bi biñ jéggi tali yëg pont bi ñu gis xale yi ndiiraan benn xale ak benn gendarme ak beneen grand ñu naan kii de moo jam booy bi ma ne maa kii jam xale bi de mu ngi nii. garaam ne kan mooy yaa man ko man maa yaa mu ne continuer leen ngeen dem hôpital ba nen yóbbu kii gendarme garaam bi ñaandal loolu yëkkati 2000 leen paas taluñu sax taxi dañoo waax bi dox di dox ba egg du ba ndax foofu yëpp deret la ba pare yëpp ay deret kese kese la yes ma dugg messe mi ne kan mooy yaa ma ne ko man rek papa ne ma ni dem leen ndax dinañ ko dañ ko yóbbu fee nii daan teg ma ne ko dañ ko yóbbu daan teg waaw ma ne ah, kon nañ leen ñibbi ñuy ñibbi si ma tase sama yeneen sama yeneen sama beneen njëkk bi ak sama beneen wucc peetoor ko ak sama beneen goro bu ndaw ak xale yu góoru koñ bi ñu jëlee di ñëw man laa ah, damaa ñëw ba buntu kër gi ma buntu kër gi fees del leen nit ñëpp di jooy. ma ne la dem nga ci hôpital ba ba ñëw te xamoo ne sa doom ñàkk na. dem naa hôpital waaye xamuma ne sama doom daa gaañ ma la ñu ne ma xale bi daa ma ne lii laa ci am maa ngi koy ñaanal yàlla na yàlla ko yàlla yërëm te xaaral ko àjjana ndax ku baaxoon ci mal la mu mbaale yee bu ñëw xaalisam lu ma bëgg dama koy jox bu ñëwee danaan maam xaalis baa ngi nii maa ne ko loo ciy jël moo ko joxal sama yaay nangam jox sama papa nangam. sama gaal bi massage démb moo ma jox 3000 massage gaal bi alal du ko boole kenn musul xëy musul xudu bu dee ne cëfër cëfër na di tooñ nii naan ko fàllu fàllu moom loolu moo ko neew waaye fàllu ngi xeex doo ko du xeex koñ bi ñëpp na koo mënal fàllu bu dee ne cëfër cëfër waaye du xeex du xulu kokkulu ay mag moom da koy def day kokkulu waate fàllu am na 14 rek 14 ans am gis xale bu góor bi ko rey wala. déedéet xool xooluma xale bu góor bu baax de ndax dañoo yëg ci pont bi xale bu góor bi traversé di dem. hôpital bi tamit jotoo gis faal. gisuma faal tamit. diggante yaay ak doom bi la ñëwee ni la sa doom boobu daal dinañu koy jam maanaam sa réaction la. Ah, dama koy sant yàlla moom ne yàlla moom ma ko joxoon yàllaa ko jëlaat yàlla moom ma ko joxoon. mënoon léegi bi gën a mënoon gën a mën a ñaawee nii ndax moom day dox oto mënoon a kaafal wala dara dina leen dal ko. waaye maa ngi ci sant yàlla bu baax ay xarit lañu woon ay xarit lañu woon su ma su ma ko yónnee day dem lu ma ko def loolu da koy def ay xarit lañu woon maanaam moom. ngeen mujjee waxtaanee yéen ñaar. Eh, démb lu mujjee waxtaan maanaam moom xale yi dañoo toog ci mbedd bi ak moom mu dóor xale yi ma ne ko fàllu da nga am bàyyi xale yi ngay dóor fekk kii topp ci moom la njëkk dóor dóor keneen ki ñaareelu rakkam bi dóor sama caat bi man ko da nga am to bàyyi xale yi dóor kii dëkk fii néeg bii doom ay doomu bàyyi lañu man ko da nga am to xale yi ngay dóor mu ne dama leen di yar man ko nga mën a yar balaa may dem dama xale man koy foo jëm moo ne balaa muy dem day yar xale waaw man koy foo jëm mooy walla damay dem man ko dayaa ngi duggati ci dëkk bi ci tooñ waaye fexeel bu fi kenn ñëw di la kama kalaam ndax mënoo war ba pare di ci wax ju bëri man fa laa mujjee wax ak moom. balaa muy balaa may dem boobu mooy tàggatoo ak. loolu la laa mujjee wax ak moom. heure ndogu bu mu jotee mu dugg néegu maamam ndogu maam ne ko kaay sa mag ji day ndogu kaay yóbbul kii nii alimatu ndugg bi mu ne ko kongo ndogu ba pare maam ne ko doo jël ci ganaar lekk mu ne ko bàyyil ma ko foofu ba ma dem ba ñëw demam boobu mooy ñëwaat ñëw noonu lañ ci yemee. bi wala. di ah nee nañ mu ngi police ba de waaw loolu lañuy wax nee nañ mu ngi kaso waaw. yan qualité moo la gënoon neex ci sa doom jooju nga xam ne moom moo def fi jóge tey. am jom nangoo liggéey xeexul xuloo bu tuxul naanut lu mu am yaay maam loolu mun naa ko seetlu ci moom lu mu am loolu danaa sama yaay sama maam ñaan ñu ñaar daal ak papaam musul mooy koo xamante ne xaritam bi doon mu koy tere tux beeg naan beeg yi. loolu xale bi da doon gis sama dee nee démb daa ñëw te koñ ba fa xale bi xale bi di génn mu jël benn bu dikk ko du mun ko bàyyi gis te dimbali sa ndey sa baay man loolu yëpp jóguma ci dara moo ko xale bi xam naa après ay wax yu sa moo ñoo ci amaat rek ñu continuer dem ñu xeex foofu. ñu ngi lay koy jaale bu baax a baax yaa soxna si ñu ngi lay nuyu. waaw ngeen def maa leen di nuyu di leen waaw ami ami Kole Diop. Kole nga ci Fallou Bignore. maamam laa waaw. ñu ñëwalaat ci mbir yi naka la demee. waaw xam naa ni dama koy ñaanal daal fi mu jóge yàlla na gën yàlla na ko gënal yàlla fu mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge ndax xale bu yaru la xale bu am yërmande ci yaayam la ndax papaam néew na doole. waaye sama doom bu góor moo papa ma bokk benn baay moo defar gaal boo xëyee ñoom ñëpp day mobiliser ñu dugg ci gaal gi dem mbaali bu ñëwee lu mu am ñëw na jox maamam lu yaayam soxla mu jox ko te ñetti magam ñu ngi ci kër gi dama ko daan wax ni ko fàllu mi ñaanal ko yàlla mu gudd fan ndax bu defee bu guddee fan lépp lu la naqari woon ci sa doom yëpp moom mii laa yaakaar ne moom mii bis bu màggee lu la naqari woon moom mii moo koy faj ndax su gaz yi jeexee yaayam ni xaaral ba fàllu ñëw su ñëwee mënu fàllu gaz bi jeex na mënu maam jox ko su courant bi jeexee su ñu ne yaayam sa xaalis su courant mu ne xaaral ba fàllu ñëw te pourtant presque moo ci gën a xaw a nekk xale ay à peu près treize douze treize yooyu dégg nga bu fàllu ñëwee mënu ko fàllu courant bi jeex na man maa des. mu ne mu yëkkati jox ko macha allah bari léjjant nag démb heure bii démb mu ngi root siwo ma ne ko siwo ndox bu ko sangoo mu ne moom amee sanguwuma waaye damay fóot lu musul def génn ay yéreem la def démb teg ay paanam fóot yéreem ba mu set mu dem weer yére yooyu mu doon fóot démb solu ko sama doom bii mu nekkal nga xam ne dafa tàng xale yi benn xale ñemewu ko ci kër gi mais moom da kay cokkaas su ma jógee ma ne ko yow yow li tax ki ñëpp ragal ci kër gi nga ñemee ko mun ma waaye ami kii day defee dara kii day day coow day kii rek bu ko sama doom bi day reetaan kafree rek te mu jógee dama naan ko yow nobbu ma la depuis ba ñu wooree démb ma jëndaliwul xëdd chaque fajar dañ koy yee mu jóg ñëw jëndal ma jëndal maamam bu góor bërki démb ci suba maamam bu góor yeewu dem dugg ci néeg bu gisu ko mu ñëw ne man de fàllu gisuma ko ma ne ko fan la dem ma ah, kon ne yow yaa fi sës ma daal di jël pot bi dem jëndi fonde ba waññeeku fekk ko mu toog ci marché bi ak ay moroomam fekk maamam fan yi dañ ko indiloon stock bu pomme ak soble ma ñëw fekk fu mu toog ma ne ko waaye yow fan nga nekk ba ñun ñu lay wër gisuñu la mu ni ma pomme de terre bi ak soble bi sama maam stock bi fii moom laa toog di ko garder damay ba ñu sàcc ko ma ne ko yow ni nga nobaatee lii laa mujj wax ak moom mu daal di reetaan xale bu baax xale bu bari léjjant macha allah mënu woon gudd fan sax parce que xale la woon mais tellement dafa amoon bu nekkee ci groupe xale yi sax da ngay dégg moom rek ngay dégg fàllu fàllu fàllu fàllu maam góor yi ci kër gi ku mu ci gis day ñëw fël sa mbaxane wala mu wagas kii bi ne la kaañi combat dégg xale daal moom daal mënu woon a gudd fan daal. ngeen xibaar bu tiis bi nga xamante ni moom moo dal ci seen kaw. metti ndax man démb maamam mi dafa génnoon dem ci kër doomam bi ci ginnaaw ma toog sama néeg ba yàgg sama doom bi yor gaal ñëw fekk may am gan di waxtaan ma ubbi sama buntu ne ma yaay kaay ma ñëw mu jiitleeg jabar ji ma yaakaar sax jabar ji ñoo am problème ma dugg néegam ne ko lan la mun ma daal fàllu lañ ma ni dañ ko jam jam kan moo ko jam mu ne man daal xaw ma en tout cas nee nañu mu ngi hôpitalu Maris dégg ma ne ha ah, mu ne ma waaw daal ma ne ko kon kay dem leen mu daal di woo magam bi nekk fii ñu ànd ñoom ñaar dem hôpitalu Maris dégg nga booba maamam mii mu nga fële ci laa génne man tamit dem marché bu ndaw fekk morom yi ñoom ñëpp ñu toog mat nañu presque dix personnes ñoom ñëpp ñu sëgg dañoo dugg ci seen biir gëdd leen yéen kan moo jam fàllu ñu xoolante ma ne yéen laay waxal de kan moo ci jam fàllu ñun maire ñu jamuñu ko de kii ka jam diw la tudd dégg ma ne ko diwlu tudd ñu ne waaw beneen xale bi ni ma en tout cas mère de li ma la mën a wax mooy maanaam mu ni ma jam-jam bi daal fu metti egg egg na fa ma ne ko ah mu ni ma waaw noonu ma gestu gis pàppam kan faalu ma ne ko ma ndaw looy def fii mu ni ma booy bi jam faalu laay xool ma ne ko déedéet bala ngay lijjanti booy bi ko jam dawal nga dem hôpital xale yaa nga jëm hôpital demal hôpital nga dem seet faalu daal di ànd ak beneen xaritam ñu daal di dem hôpital Maris ma daal jël sama téléphone woo Alimatu ma ne ko ana sa yaay mun ma sama yaay di mu toog. moo ci kan. mooy euh, euh, sëtam bi nekk fii ci ginnaaw këram la demoon. waaw ma ne ko sama ana sa yaay parce que moom maam ji yaay la koy wax mun ma sama yaay ngi toog ma ne ko génnal comme moom dafa amee feebar. bugguma mu kii ma daal di ko ne génnal mu génn ma ne ko fàllu lañu wax ne dañ ko jam ba yóbbu nañ ko maris sa yaay laay bëñ nag mu yëg ko léegi wol jaw faal ngeen ànd fekk ma marché bu ndaw daal di génn ànd ak jëkkëram ñu jël taxi fekk ma ci marché bi ma taxaw ñu daal di ànd mais ni ma xale yi waxee sama xel parce que deret diñ ma wax ni moom la kii ak ak ni mu nekkee xale ba pare nekkul nitu yaram sama xel daal xaw a jax-jaxi bi ñu demee ba hôpital ma jël taxi ñoom ñu jël taxi dugal ma ci bi ñu demee ba Maris bi ñu nee cëpp wàcc tase nag ñaari jigéen ñuy jooy. ma xool bokkam lañ wala ci hôpital ba lañ nekk rek ñu dugg ma seen euh, ñetti infirmière yor ay serviette di fomp nekk biñ ko gàddoo deret ji kii na foofu ñoom ñuy fobee rek ma dégg daal ay nit di wax ma daal di xool xale yu góor yi ko jële woon montagne yóbbu ko hôpital ma daal di dem jubal ci ñoom maag tàntaam maag bàjjanam ak alimatu bi ñëwee ma ne waayu euh, Omar Niang naa ma ne ko ana Fallou mun mi ngi d'urgence ma ne ko d'urgence mun ma waaw ñu ngi koy toppatoo ma ne ko déedéet noonu jaw Fall bàjjen bi geestu gis waa ji ko leewu woon yére yi taq rëpp ak deret moom mu daal jël ñaar loxoom taf ci kanamam di jooy ma taxaw taxaw taxaw ba yàgg rakku magu papaam bi waa ji ku yóbbu daal di jàpp ci loxo magu pàppa ji ñu ànd ñoom ñaar ak ki ka leewu woon ñu dem isolé wu fële toog ñoom ñaar di wax mu xool leen xam ne ñii li ñuy wax nekkul lu lu kii ma daal waaxu ñëw fekk si leen daal di waa ji ne ko man mag laa dama bëgg nga wax ma li xew parce que moo gën nga bàyyi ñu ci hôpital bi ñuy ñuy wëndeelu te xamuñu lu xew dëgg gi laa bëgg nga wax ma ko mu geestu gis xool bàjjen bi xool alimatu daal di ni ma meer dal leen rek ma ne ko waxal ma li xew rek mun ma daal neexul ba neexul waaye yàlla def na li gën fekk sama doom bi moom moom mu jiitu fële yaay ji dem dafa leneen man moom ba mu eggee rek xam na ni affaire bi am na. mu daal faalu ñàkk na mu daal di wàññeeku nag taseeg yaayam ak jabaram moom daal di leen kaay leen dem ñu ne ko ana faalu mu ni leen évacué nañ ko la daan teg moom loolu la naxe yaayam ba indi ko ci kër gi moom bi muy ñëw sax tànku ne dégg naa sax la génnaale dégg ah man tamit ba daal di xale yi. ñoom ñëpp ñu nekk foofu di jooy léegi ay xale yu góor jàppale ma leen ma arrêté clando dugal leen ci ànd ak ñoom ñu ñëw ci kër gi loolu daal la affaire bi demee waaw. tey lan la def ci yéen ki nga xamante ne nii ku leen jege woon la nekkoon seen xarit aussi su ma ko déggee mooy koo xam ne eh, amul ci kenn xaar ma yàlla tey ngeen yeewu dégg ne rek rey nañ seen doom naka la lan la def. xam nga yàlla suñu boroom moom bu la tegee nattu bul nangu sax ni. lim ma teg naqari na ma dégg nga waaye nag liñ ci xaw naqari daal mooy demin bi waaw mais bu fekkonte ne dafa feebar yàlla jël ko dañuy xam ne yàlla ñu ko joxoon moo ko jëlaat mais boom bi daal mooy li nga xam ni moom moo ñu naqari waaw mais du li li ko yàlla rey di na mu demee loolu mooy suñu naqar waaw parce que dem na te dem na ak métit waaw loolu daal bu ñu jooyee loolu la ñu jooy mais du question ndax daaw jéeg rek lañ fi ñàkk papaam nga xam ne bi muy dem bàyyi na ñaari doom ak jabar ah, te teewul dañ ko doy xam ne it mbiru yàlla suñu borom la yàlla ko soxla moo ko jël waaw kii tamit ah xëy na yàlla ni woon tamit reefom ci loxo kii la nekk waaw dañuy jël yëpp daal. waa ji ban heure la ko jam exact après ndogu daal la waaw parce que bi mu ndogoo ba pare parce que xale yi dañ fi doon def mbar bi du kër sangu na. romb xale yi di defar sandwich ginaar mu sëq ci loxoom nii. fàllu fàllu daal di sax ci gémmiñ gi dugg néeg yaayam sol yére bi ñu ndogoo ba pare nag am na benn ndugg boo xam ne maamam bële moo ko doon jox bàjjanam ci la ko ne jëlal mbuusu ndugg bi nga dem yóbbul ko sa kër bàjjan mu jël mbuusu ndugg bi dem kër bàjjanam bàjjanam sax nee na ba mu ñëwee alimatu nee na dafa fëgg rek ma ne entré mu daal di def ni dodo bi teg mbuus bi daal di génn dem. ñawaatul nag ci kër gi waaw papaam boobu nag nee na moom bi mu toogee booru géej ji waxtaan gis na ko mu ànd ak ay moromam comme ñoom ni ñu kii nii di foon nee na gis na leen ñuy dem mais nee na moom sax dafa mel ni yàlla dafa téye gémmiñam ba waxu ko sax fàllu fan nga jëm parce que moom ragal na ko moom su ko waxee rek day def mais Pape nee na gis naa ko mu jiitu ànd ak xale yi ñuy wax di dem waaye Pape Fall ne man tam mu continuer sama waxtaan waaye su ma xamoon ni sax dañuy xeexi kon dama koy wàññi ma ne ko waaw. dañoo dëndën pour xeex. déedéet moom daf leen a gis ñu jaar ci boor tefes bi di dem rek xam naa xale bi la ñu àndalu ñoom xeexuñu de xale bi dafay gens di leen topp ñoom ñoo ko ni ñu topp comme yow boo nangu woo bàyyi gens ñun duñu ànd kuy gens waaw loolu la moom loolu xam naa moo ko jotale ak xale bi ñu fekkee loolu tamit loolu la ñu wax waaw parce que am na benn doomu maamam bu ci àndoon nee na sax bi ko xale bi jamee ñoom dañoo daw mi ngi naan gaaw leen ngeen yóbbu ma hôpital bala maa dee waaw loolu xaadi ci pa bàyyi wax na loolu moom nee na dégg na Fallou wax loolu waaw. xale bi mu koy jàmm mu sa gom wala boobu dafa fekk mu tux wala mu naan. waaw nee nañu dafa 15 dafa 15 dafa 15 woon. ñu ngi la koy jaale bu baax.